actualité la démission de Alexandre qui la caisse de dépôt de consignation je pense que c'est une démission il a fait en tant que sénégalais et vouloir mettre à l'aise le présent comme il l'a comme il l'a dit je pense que man lii acharnement la démission bi warul nek parce qu'il faut que aussi tamit nit ñi delluwaat ci base fondamentaux euh, base base euh, république bi mooy loo xamante ne mooy Sall c' le directeur général de la CDC te Sénégal directeur général bés bu ko justice soxla amul lenn loo xam ne tere na ko mu dem muy justice loolu premier point la Aliou Sall du ministre Aliou Sall du député donc directeur général war na mën a dem muy justice léegi pour nit ñi nee tey dafa war démissionner pour mettre à l'aise le président il faut nit ñi xam lu gën a fort mooy le le général du CDC mooy Aliou Sall ak Macky Sall ñoo bokk ndey ak est-ce que loolu noonu dañ koy dagg sommes famille dañ koy dagg pour pour parce que ay wax ay waxu ñenn ñi ñoo xamante wax joo xam xam xam nañu c'est des gens tapis dans l'ombre des ennemis des ennemis du Sénégal loolu la mën a même ñoo xam ne tey ñoo soulever débat bi ba démissionné il a eu à faire un comportement républicain pour aussi nit aussi ne aussi comme ni ñu ko waxee dañ koy nangul ne am na famille am na njabootam te aussi nit ku ne góor la góor nag bu ñu ko waxalee yenn yi day dem day day day day dafa war a dem raxas ci deram mais aussi i faut nit ñi xam ne il faut nit ñi am raison garder raison garder bi mooy lan mooy tey Aliou Sall démissionné na pour dem répondre comme ni mu ko waxee bañ a indil benn jafe-jafe son frère le président Macky Sall pour répondre justice mais aussi tamit nit ñi nañu arrêté ñi doon yuuxu di dal léegi il faut que aussi ñu nanguwul benn affaire mooy Sénégal république la Sénégal dafa am nu muy doxee Sénégal dafa am bànqaas yu ko téye ñu dem yóbbu affaire bi ci justice pour affaire bi a leer une bonne fois pour tout parce que gis nañ ne ça fait une semaine teg justice procureur ubbi na ci enquête mais ñi si bëri gën a bëri tey demuñu wuyu seen coobare am na ñoo xam ne ñoom commencé woo mais am na ñoo xam ay preuve gisuñu ci kenn mais fu ñu jóg fu ñu jëmee Sénégal baaxul fu ñu bëgg a yóbbu réew mi baaxul parce que nit ku ne tey Aliou Sall la mais suba kan lay doon parce que mun nit ku ne mun nañ jël tuuma yi bon teg ko sa ndodd tegal la waxal la loo xam ne amut def wax wax ci loo xam ne amut pour nga mën a teggi sa normal est-ce que Sénégal guñ jëm Sénégal Sénégal dëgg la est-ce que Sénégal guñ jëm war nañu taxaw xoolaat suñu cër xoolaat suñu taxawaay xoolaat tey est-ce que lii nii war war nañ war nañu xool ndax est-ce que tey lii nii Sénégal la mérité nañ ko donc ne na. acte bu nous saluer le mom en tant que mom parce que décision boppam décision personnelle mais man en tant que son camarade de parti le ma koy wax mooy Aliou tu as tout notre soutien ni nous ko waxee parce que tu es un camarade de parti et tu as tout tout tout notre soutien aujourd'hui Taï, ci li nga bëgg def te aussi tamit lu ma koy wax coow coow coow tamit il faut coow coow mona. a dakk mooy ne ku nekk na nga dem justice tey ils ont peut-être euh, Aliou nak nu mu ko defee defee na ci peut-être euh, élégance républicaine mais aussi war nañ xoolaat tey. tey démission bi parce que mu ngi ko bëggoon defee ci baasam géejuwaay mais waa géejuwaay tey tey ñoom tamit génn nañu indi benn réponse politique muy ñoom ñii di wax Aliou Aliou Aliou ñoom Aliou la àndal tey Aliou la ñu àndal ëllëg il faut aussi ñun tamit aussi sénégalais yi yenn yenn gens aussi ñu mun a respecter choix wu géejuwaay ñu xam ne waa géejuwaay ñoo porté Aliou waa géejuwaay c'est vrai seen maire la mais tey à cause de maire géejuwaay moo tax tey Aliou choix am boobu ak njàngam ak moo tax mu nekk maire CDC mais aussi tamit pour wane ne waa géejuwaay wane nañu mooy action politique réponse politique moo koy fay te tey tamit image géej géejuwaay bu bu jeune géejuwaay génne ak famille ak mag ñi euh, publicité le leader Aliou seen leader Aliou Sall ñun aussi war nañ ci taxaw benn taxaw def ci benn saytu muy ku nekk am nga mbooloo ku nekk mun ngaa def lu la neex ku nekk mun ngaa sos lu la neex mais nañu xam ne ci république ba lañ nekk nañu delluwaat ci ay valeur nañ delluwaat ci xam-xam nañ delluwaat ci ci xam ne dëkk bi ñoo ko moom ñun ñëpp bu ci kenn bëgg bu kenn tey fa yaakaar nga mun nga taal dëkk bi wala bu kenn yaakaar ne tey ay sos wala ak complo complot wala ak lu ay ay fen mun nga cee yor réew mi wala mun nga cee daaneel nit lii nag yomb na trop dañ koy nangu décision parce que c'est une décision personnelle mais ñun en tant que des républicains ñun en tant que ndaw président de la république dañuy wax ne tey la ñu gën pour soutenir notre camarade Aliou Sall tey la ñu gën a aussi pour taxaw pour justice mën def pour aussi tamit ñu mën a leeral parce que il est temps que mbir